Alioune Cissé Niang président Ansaroudine groupement départemental de Kaolack mais coordinateur adjoint bu COMAF yàlla dogal ren organisation COMAF euh, man ma nekk fi coordinateur bi yàlla dogal mu ngi ci eh, loxoom jàpp mu ne dañ ko uutu ci taxawaay bi moom Cheikh Baye Mamoun mooy président COMAF man may adjoint am mais yàlla dogal ren euh, empêchement am na wala am na occupation mu autorisé ñu pour ñu liggéey ci place naka jekk bu fi nekkee ñun ñooy liggéey ci wetam di coordonner organisation bi parce que organisation événement pays bi ansaaru diin la ko sëriñ bi dénk moo koy superviser di ko orienter mais comment mooy bara technique bi nga xam ne moo ko moom la koy utiliser donc bara technique bi mooy Cheikh Ibrahima Mamoun Niass superviseur général bi mooy ansaaru diin national ansaaru diin national boobu am na kilifa muy Cheikh Mouhamed na Cheikh Ibrahima Niass yàlla dogal jaamu xeebu bii di wax ak yéen mooy premier adjoint euh, président national bi mooy chargé du siège médine Baye chargé du siège nag bu ñu ko waxee ci faydu bi siège bi Taïba Niassène la ak Medina Baye kon euh, dama placé pour nekk coordinateur yi comité d' organisation bi loolu tax ma représenté fi dine représenté fi COMAF su fekkee ne dañu bugg rek ñuy tënk gaawal mooy da ngeen di laaj bés bi taxawaay bi ci Ansaroudine am ak bi ci taalibe yi am bi ci Ansaarud-Din am mooy mooy joxoñ biis kalifa bi joxoñ Ansaarud-Din moo koy tàllal mu dem ci taalibe yi euh, li ci taalibe yi def mu ñëw Ansaarud-Din moo koy paqueté présenté ko sëriñ bi loolu mooy organisation faydu bi muy gàmmu muy gàmmuwaat muy gàmmu Taïba Taïba tey nag ñuy wax ci gàmmu ba màggal juddu Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass suñ sang boobu nga xam ne nuñ mel moo ñu ko def may leen damay sama mbaxana pour seddal ko ci seddal ci turam ne xam nañ ne suñu àddina dana ci baax suñu àllaaxira dana ci yéwén ñu ngi sant yàlla di gërëm Cheikh Mouhamadoul Mahi xaadimul umma boobu nga xam ne moo ñu may opportunité bokk ci liggéey bi man damay wax ne tey su ma ñemewoon a jëlaat tur damay wax ne man maay xaadimul xaadimul ummati moom jël na xaadimul umma bi ba pare serviteur bu umma bi man nag dama bëggoon a nekk serviteur yi serviteur boobu te dafa mel ni suma ko mérité ñeme woon a wax loolu laay wax ne man maay xaadimu xaadimu uma boobu kon nag tey dañoo taxaw fii pour saytu liggéey bi nga xam ne moo ñu ko dénkoon waajal màggal bés bi ansaaru din dafay oo COMAF feggoo ak moom ak commission yi liggéey commission bu nekk am na luy rôle ci gàmmu gi demeet ñu ngi ci neuf commission président commission bu nekk defar plan d'action su amee budget mu dugal ko ci budget boobu nag kenn rek moo koy uti mooy ansaaru din tey ci taalibe yi rek la koy uti loolu moo tax foofu balaa may dugal suma wax ma waxaat taalibe yi ne nañ delluwaat ci joxoñ boobu Baay Ñas joxoñ woon ne dëkk buy ñetti nit sax nañ sos mbooloo mi tudd ko sof ko ci ansaaru diin bëgg na bu xamee ñaataa ci bokk xam ñaata ñooy taalibe yi kon nag dërëm dërëm boobu ñuy dajalee ba lu fi taxaw ku ne sañ a yëkkati loxoom ne ci laa bokk ci ñu ko def mooy ñi ñi koy jaarale ci ansaaru diin bëri na nag ñu ciy def waaye Ansaarud-Din mooy piloté comment mooy organiser matériellement léegi organisation bi tey mu ngi toll ci fi mu nekk mise en place pour commencer programme bi mise en place bi cérémonie officielle bi mooy jiitu tey ci programme bi mise en place bi di heures lañ ko jàpp Al Khalifa dana départ 16 heures le car Kaolack jëm si Taïba donc jàpp nañ ne di heures dina ko fekk ñu dem ci mise en place cérémonie officielle bi cérémonie officielle bi ni muy comité bi proposé nañ ko xalifa bi validé na ko xëy na maître de cérémonie bi dana ko présenté léegi li des nag mooy organisation bi lu ci am ak lu ci waroon am amu ci dañoo defaroon plan d'action def li nga xam ne état koy war a def te sénégalais yi la ko war a defal ñu laaj ko état bi li ci yi war a def ñu def ko taalibe yi góorgóorlu liñ ci man def nañ ko ci li seen kem kàttan léegi ci des rek mooy nañ góorgóorlu ba ku amul lu mu ci def sax jàpp ne warta ñëw nañ jàpp nañ ñëpp a war a ñëw uy si sëriñ bi ndax ñi ngi ci waxtu ñaan nangu ñaan woo xam ne déwén lañ koy amaat kon kum rëcc tey da ngay xaar ba déwén pour sa soxla faju loolu foofu appel la pour taalibe yu uy si ko li des nag mooy ndax engagement yi état amoon yëpp def nañ ko am na yum def mais bëri na nag dëgg yoo xam ne def nañ ci defuñ lépp mais am na yu bëri yuñ defu dara am na dégg ngeen intervention bi sama mbokk secretaire général adjoint Cheikh Tidiane Gueye def léegi cité na commission yi ak manque manque yi ak yaakaar yi ñu tiital daaloon tiitaloon daal bokk na ci mbiram ndox mi ak assainissement bi li aju ci côté vidange yeeg yooyu parce que su fekkee ne dëkk bi amagut réseau ONAS li fi mën a am bu fi mbooloo mu mel ni dajeer ñu am opportunité wala possibilité pour di évacuer eau yi ndox yi yàqu yi su fekkee loolu amul rek mooy xew-xew dana am bu problème ndox posé bu xew ci xew-xew bu em nii mbooloo mu em nii dana indi problème donc ñu ngi gërëm foofu rek waa tey Taïba Niassène def nañ lëkkaloo benn def forcing ci seen alal ci seen xol gas benn forage boo xam ne ci fin bi yàlla dogal na am ay responsable yu ci dugg pour ñu mën koo conserver ba forage bi bënn na Senelec benn problème rek lañ ci amoon mooy courant bi ko war a alimenter pour mu mën a servir ci Taïba loolu nee nañ doomi sëriñ bi Pape Demba bi tey def na ci doole joo xam ne ci boppam ak ci état du Sénégal ba yemb na ba fi mu nekk nii fi nekk forage boobu bënn na mu des rek euh, ñun ñëpp ñi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq parce que tawfiq yàlla koy maye ba nga xam ne foofu ñu war a atteindre duñ am problème ndox duñ am beneen problème nañ fa àgg ci jàmm bu mel ni fekkee ne am na question boo laaj mooy biñ ma tabbee ak léegi dafa am nouvelle bu fi jaaroon mooy prés kalifa bi dafa désigner ku war a nekk président ansaaru diin national parce que dafa am lu fi xewoon président national bi dañ fi déclaré ne dafa démissionné te comme association lañ du daayira association dafa amay ay règle da ngay nekk membre nii ngay nekkee membre droit yi ngay am devoir yi moo mooy sa charge léegi président bi ak membre bi gën a tuuti ci association bi ñoo am droit ci association bi su fekkee remplir nañ conditions yi su fekkee dañ ne président bi dafa démissionné bal boobu dafay si ci balu ci camp association bi sëriñ bi nag bi wax ji demee ba àgg ci moom te yeneen rumeur amoon na diw lañ dénk diw lañ fal diw lañ fal du ma ñëw ci tudd turi kenn yooyu xewoon na fi am na sax déjà yu ñu annoncé woon publier ko ci internet bi waaye bu ngeen xoolee foofu gisu leen fa benn responsable ansaaru diin bu démentir wala mu dëggal déggul nañ leen sax dañoo toog rek parce que xamoon nañ ci lañ nekk association lañ sëriñ bi nag gannaaw gi bi mu defee constat bi oote na suy oo association tam am commité directeur bureau am assemblée générale am ñoo ñu ñooy instance yi nga xam ne ñoo amee association bi du keneen te sëriñ benn patron lañ am mooy xalifa bi bi mu déggee wax ji mu oo instance bi bi instance bi ñëwee ñu ne ko ñun yëguñ dara vraiment yëguñ mu ne loolu ñuy wax dama bëgg ngeen ool ma ñi mu concerné ñu waxtaanee ko ci la oote woon ñu ñëw daje rupture bi amoon moom moom mi am pouvoir yi jàng damu damu bi mu jam damu damu bi seet président bi di fi nekk mais avant loolu ci li ngay wax ci la xewoon mbir mi fokk am ko ko téye bañ bañ jubbanti ko boobu la ma oo nag man maay vice président chargé du chaise te vice président chargé du chaise ci texte association bi su président bi fi nekkee. mooy toog ci wetam di liggéey gis ngeen ne gàmm gi man ngeen man kenn ngeen i gis te président bi mu ngi fi donc pouvoir bi ci taxi ba la nekk may ànd ak moom su teewee may toog den nag moom maa koy dimbale ci exploiter plan d'action am ci liggéey su utee may toog place loolu moo indi bi mu utee xalifa bi ne ma toogal place dama ne woon toog place am pour intérim te man gëm naa ne a naa intérim bi parce que am na benn semaine boo xam ne su amutoon ku téewoon intérim bi heure bi lii du fi taxaw looloo taxawoon sëriñ bi ne naa téye intérim bi ma téye ko dara xewut ñu liggéey ba bi yàlla dogalee mu dogal le président dellu si ci chaise am bi toog ci ñu jug ci chaise bi dem toog ci chaise bi ñu toogoon ci gannaawam mu ne ñu nañ continuer piloter moo tax dégg ngeen ay information xam ci gémmiñam ngeen ko dégg Cheikh Mouna démb dem na ci Alfayda def na passage foofu ñëw na fii tey tey ba def na fi ay passage gis nañ ko ci internet bi muy apprécier suñ taxawaay ak suñu liggéey ak suñ góorgóorlu mais nag moom la ñuy gërëm Cheikh Mouna moo elloo ngërëm parce que ñun fu ñu tudd rek moo ñu fa ebal su ko neexoon mu yónni keneen kon nag loolu rek la pour mu leer problème amut président national bi Cheikh Mouhamed mun xamin naa la sëriñ bi confirmé na ko pour mu ñëw àggali mandaam moom daf doon ñaan pour dem defi leneen parce que charge yu bëri la ko sëriñ bi dénk sëriñ bi nee na mu des àggali mandaam bi ñun ñi ko doon jàppale nañ ko jàppale ko kon léegi Ansaarud-Din national euh, Cheikh Mouhamed Naam mooy président président Cissé Niang moo jiitee département de Kaolack di euh, président zone siège bi di coordinateur bi di premier adjoint yore pilote bi loolu mooy question bi su fekkee amul benn question